dal leen jàmm seen boutique Lodeco Lodeco nekk une boutique boo xamante c'est la meilleure sur toute la capitale sénégalaise xoolal le rideau yi façon couleur bu n'êtes am na fi lii Lo Lodeco rek la Lo Lodeco am prix en gros waaye itam détail Capital. Yeah. Capital. fii mooy capital. neexul. da fekk dëkk capital kuchisisu. ci siisu. da fekk capital. su kombine selaw. ñëpp dañuy laajte. na moo ñu dara. fépp la ñuy wàcce. dugal fi sa loxo ndax fi mooy eh. capital fis waaw léegi moom fu mu yaa ngi doog a doon góor yàlla nag ah. bëgg naa George bu wéree ah. loo romb rek fobeeral ah, jànk jeeg jeeg ji loolu moo amul bëlem bu sonn quoi da sa xolu mu am sedd fu mu nekk nii xale bu mu for dama lay ramasser jeex na fu mu ne nii daal defal ndànk yaa ngi door kii dama bëgg bàyyi ba ba Georges bi wér. Mm. nga door a tàmbale loolu. mais fu mu ne nii moom test ngay def. ñun ñëpp laay karakashi ñun ñëpp. non gëm naa loolu ndax man sa bàyyi man ba mu ci toll noonu la demee woon. Oh. te xam naa ne yow doomu ma oh. te incha allah sax xam naa ne papa sax laa lay jox mu doon sa selbe. <laughs> Ah. jox nga ko mën a selbe nag. ku dàq selbe rek nga ma jox. waaw yow kay defal ma loolu rek dégg naa la yàlla bari na sutura. jërëjëf cey koor bàjjo bi koor ñëwati na ñi mhm. baaxoon di gën a baax ñi bon war cee soppi ku jéem a baax yokk jaamu yàlla yi yàlla ñu yàlla suturaal rek ñu bañ koo def tactique cinq deux trois bi li may bañ a tudd cinq deux trois lu ñu dal moo ñu ko teg. waa jànk nii moom la kóoróo ren bii de damaa fas yéene jël samay mesure ferme. ferme nga wax de. waaw déggoo li ma la wax xanaa. kóoróo ren bii damaa fas yéene dox ci lépp lu may jegale suñu borom seen i mbaxal ak seeni i mbaraat moom merci rek. jànk ka foo moom toogul foofu <laughs> yow jël nga sa décision rek. aduna yàllaa ko moom te déegi dafa gaaw ñun ay xale lañ nañ dox ci lu neex yàlla moo gën. jànk foo jàpp. yow ka foo de yow bi bu ba léegi yaa ngi may karkaree lan la mais c'est évident mu woo parce que dama la nam oui ma comme boobu ba léegi dañuy saison est-ce que doo ñëw ñu yegg si kaw caaxaanu yi. caaxaanu ma ñëw ñu yegg si kaw rek neexal ko yaa hey hey yow bas loo bëgg a jàpp sa dund Basir ah foo jëm ak kii dañoo am examen dañuy réviser. Eh, dégg ko muy fenn yow maa ngi toog fii sama saal bi di la dégg li ngay di wax yëpp bam naan la ay nañ tëj saison bi ndax tëjuñu ko woon première jour koor ba sa nawle yëpp woor amoo looy def lu nga da ngay ëri ak kii loo mën ci moom ndëqate gi Clémentine bi loo mën ci moom kii nga xam ni waxuma la yow mais ñun koñ bi koñ bi mën nañoo dajale ñun ñëpp aspirer ñu dem yoonam. nga naan da nga bu ñuy wax nga jël sa kanam gi di ko mabbal muy mel ni tànku mbaam nii. papa dañoo am examen dañuy réviser. réviser xanaa man damaa dof fii laa taxaw di leen dégg toog ci sama saal bii ngeen wax li ngeen wax lépp da ngeen tëj seen saison ah foo eh, nga def ah oh. germa. Hmm? ma ne germa. naa la la jox xam nga loo war a jox. yor naa fi 1500. 1500 waaw. wecc ma 500. kon nga dee ko de 1500 nga pare jox ma 2000. 500 yi moom ko. xoolal avancé laa la wax. eh foo bëgg a dugg. sama néeg. bul dugg sa néeg. lu tax doon ngaaga. xam nga sa néeg sa ndijaay dafay dugg lu bari. Ah, mën na faa dugg fekk la fa. demal sama néeg. Ah. eh yow it bañ <laughs> jigéen PM. léegi léegi ah. merci. eh suufu matelas bi yëkkati ko. amna ay mbarakis sol ñaar tegale ko wala mo wala bo tej capital fii my capital capital lan eh lan la yow xanaa gisoo Basir Basir man kalau bu jigen bi muy àcc kaw xale bu jigen bu muy àcc kaw di ko eri ci bi. anam ah, bu egsi wut dee de. ñëw. ba ñuy réviser dañoo am examen. examen yow Bas ngir yàlla doo suturaa sa Bas ah yali li Papa As di wax dëgg la. yow noppi premier jour weeru koor doo suturaa sa bopp bàyyi ngay fat jigéen ah xam nga yow ni may def woo sa yaay foofu laay mujjee yow yow danga may abal yow yow nit nga. ah yow kii man ak yow papa as mënu ci moom dara eh yow laa xa jaaral ni man nga tax amu leen kersa rek wag wang bi yow bas nit nga yow eh ki loo ko doon doyee boo ko yëgalee nga may wax ko bëti ñëwal nii ñëwal bas yow nit nga yow dama seet woon ci yàlla naa sol caleçon ñu xeex yow ci kaw. wuu ina paaw laa saas nag yaay mbaam dëgg neexul ba neexul mais yow yaay mbaam mais nag nii la bu ma ko dàqul woon day dugg ci kër gi bàkkaar wàcc ci kër gi te tey moom du journée bàkkaar tey ay yiw képp la. moor moor ñëw na. dégg naa moor ñëw na. dikkal moor moor ñëw na. dégg naa moor ñëw na. dikkal moor moor ñëw na. dégg naa moor ñëw na. moor moor ñëw na. moor ñëw na. moor moor ñëw na. baas ba. dégg jëndal góoroo jox sa baay mu yey. wala sa yaay. yaayu kan. sa yaay. sa yaayu yaay bi jur sa baay. waaw. sama jabar di ma woo jox ma vermicelle ak yàpp. mu ma gënal di ma woo teg ma ci gaas di ma yokk nga jënd socc naka njaay mi njaay maa ngi ni maa mi ngi dox ah sant yàlla rek alhamdulilah moo féete kaw de mu ni ma ni sant yàlla moo féete kaw ah moo féete kaw waaw waaw ah, nit daa di sant nit hmm. de sañse waaw waaw ñëw yaa ngi de Bellingham ñoo bokkoon daayira ah bon daayira yow mi entre segg café ak séddale café hmm. moo ci mënoon ci daayira bi hmm. finalement nag ci la tukki bi mu di suivre ay football yàlla dimbali ko ba mu signé Paris fi mu ne mooy seen góol yenn may wane ma ana jëwrin ma ne ko jëwrin a ngi fi de yow mi waaw kon man ki gis marché Tilène mu jënd café Bellingham la yow seetal yàlla ci li ngay wax mu ne ma ne seet ci yàlla mañ seete daayira Daara Samfal. waaw Martili mu jënd café. waaw mel ni mi la ni Bellingham yow est-ce que rombo am bongo mii di woy fii ci dëkk bi nga demee ni Bellingham. jënd socc. socc lu muy jar. yi 400 yi 100 francs. 400. guro. guro moom bu ko lim yooyu ma guro damaa wóor. ah doo guro. jox benn bu 100 rek. benn bu 100 francs. ma géré ko quoi mais gàtt na de socc yi tuuti na de. waaw nii laay de. damaa bëgg mu gaaw a jeex mu ñëw jaayaat la. ah ñun dañuy for sunu xaalis. nga ni ma ne dañuy for suñu xaaliss soti wota yag ci gemmi deug la yi ba set la deug la an pap fodé mi ngi kaw yegal jaay te fan yi nak day peese petit cola ah. ay kilo la ci jënd ah bon waaw demal bala mo génn di wuti kenen sama xaaliss mi ngi si maa ngi ñëw boo ma jox la weeru weeru jamm la weeru jamm la weeru mbekté la macha allah ah way weer yagul weer yi moom nañ ko dóor mu daanu inshallah moo ngi fii <laughs> sa waay as moo ngi fi de moo moo ngi ca woon la ca la mu nekkoon rek de bu wooree tey bu subaa du woor moom lu ko neex lay def moom waaw amul benn problème incha allah noonu dinañ gisee dinañ gisee bu soobee yàlla waaw faa ma jéem a ñëw seen côté baalu àq jërëjëf waaw dinañ déggantaan incha allah <laughs> jara naa mbay jaraatu la jarana mbay jaraatu la e jarana mbay jaraatu la dëkk boo dem njangay e moor dëkk am nay jaloore moor noo def exil e moor noo def sant yaa ngi si jàmm maa ngi nii rek la yaa sam xorom def ak tuuti suukar <laughs> eh, may lem ah. <laughs> Hey. Eh, iya, Njaay mi Njaay maa ngi nii. macha allah mu ngi jar mbaa. waaw waaw waaw maa ngi alhamdulilah. <laughs> Iya, naka weeru koor gi nag Mor del nuyu ndànk. Hmm. <laughs> ni nga jaay ya, bu ko di nuyoo. sawar <laughs> ah. iya, rek. ah ii tey waay. mbaa lépp a ngi dox rek. waaw waaw waaw lépp a ngi dox alhamdulilah gaa yaa ngi jënd mbaa. waaw ñu ngi jënd daal benn benn rek. waaye nag ma lu jaaxal. weeru koor gi nii moom ah nu ko gaa di jëndee bëccëg bi. foo de. bul yàq sama xel boo jëndul di ñaa ngi jënd. kon baax kon baax na. petit cola bi moom ñaata lay jar sa petit cola bi tuuti na de. ma ne petit cola bi ñaata la benn ñaata. pourtant dama ko petit cola dama ko natt si yow nag. ah waaw si man nga ko nattee nii. gis nga de waaw. kon de dina jar. dina jar kay. waaw waaw. la. bii cent franc la. man na de. nga ah dong laay jaay de. waaye déglu ma nit da ngay xool li sa xool entre nga di ko def waaye bul bul toppee bul def noonu. ah man de ni nga toll dong laay jaay moom. léegi man xaaral rek ma jàpp ci man it. ni mu tuddee dong la dong laay. am jaay ma benn. cent franc lay jar nag. waaw nee nga cent franc lay jar am. mais xoolal ma bu baax de. ah déet déedéet amul xool bu baax de man may tànnal nit. am bii baax na. changé ma bi. déet. xoolal ma bi xoolal ma bële. bu waaw. waaw ah, boobu ndaw rek. ma def nii rek waaye xam naa ne de. ah. depuis que laay tuuti na de. ni nga tuutee dong la tuutee rek. waaw ah. ah. mais am sa waa ji. kat. ah sa copain as. ummul jaw lan la merci beaucoup lan la yaa ngi ñëwaat eh, mor fodé eh, mor capital fii mooy capital yeah. capital fii my capital yeah. capital ah.

aslu la. da maa gis. ooy yow. ñaata baaraam laa la woon. as yi ñaari baaraam la. ko as ñaar fukk moo tax ngay làkkatu fii ñaar fukk. mu doon bronzé wu rek. ay booy bronze jox ma sama ñaar fukk laa la wax bëgguma yii de. yan nga bëgg. jox ma sama ñaar fukk. loolu def ndànk. ay defuma yow kan moo la wax maa ngi fii. eh bul lijjanti loolu jox ma sama ñaar fukk laa la wax. mais doo tey loo may joxoñ. as teyu ma yow yaa amee. waaw yow dimbali ma cent franc tax nga may yam. ndokk ndokk damay liggéey. yaa ngoy dégg. wala bu ma luqi de. boo boo mesee ba ñu wee da nga war a fay. bu luqi daal en tout cas. luqi gu la sax yow. téyel sa ñaar eh indi sama ñaar fukk. kan ma la wax maa ngi fi. mu ba joxe. moo mën fen dëgg. sama ndaw si. waay génnal kër gi waaye. Eh, su ma génnu daw. waay man ñuus la. bon ñuus ma fi waxoon. gali taxawal nga yëngal. maa ñuus mais muuma mi mën naa fen de kii yàlla baax ba mu ko xañee aw làmmiñ kii bu amoon làmmiñ toj dëkk bi zappare waa yow Pape Fodé lan laa lay nuyoo nga may ñàkk kersa ni ñàkk kersa ah rek maa woo de nuyu ma de Pape Fodé nga xamal la japonais ah léegi loolu du nuyoo hmm, non kañ du nuyoo nag ma woo ma delluwaat la woote gi xam nga ma jaaxal ci yéen yar daal moom zéro ana lan moo gën asalaamualeykum man ma ne la waaleykum salaam mooy yendoo ko fanaanoo ko man it ma delluwaat la ko loolu jàmm di. maa hmm? foode maa la tooñ maa ngi jéggalu sama kuddu jàmm la ràcc di taalal. yow mii mm-hmm. ah tooñ moom jéggal lañ lay jéggal waaye nag dangay ngay tooñ pour bàyyi jéggalu gu bari gi dégg nga ma. capital. my capital. Yeah. Capital. my capital. Eh, yolo ya lah. Wih. Lalu mau? Ini nih demu bu gis Lalu lalu lala luy furti furti ni. Ko demu ya? Ya. Lalu lalu kau, Bay daw. Hah? Ya. Ko da. Papa As. Hmm. Aku Muma, ñong lay cowok ciow bu metti. Muma këriñ. mu ma meen. waaw. mbaa xam nga ne xeex boobu day neex. papa as ak mu ñu laale mu nga xam xol bi dafa ndaw. naa fi may waxee ni sa waa bi génn nañ di seetaan imaam ba xam naa ñoo ne di àtte faale wuñu ko mu imaam ba daa taamu loolu kuy xeex si koñ bi dañoo di àtte xam naa lijjanti wuñu ko sax te ku dem sa papa as dina génnee jaaseem bi. foo de nag fii ay tooñ am fi de. ah maa ngi jéggaloon rek nga commencé. déedéet dama lay wax rek. Kaffour yaa ngi dégg daa mel ni papa As mooy xuloo de. waaye may ma As dégg naa ko de nañ ko rey man maa sonn ci kalaame beeg àtte eh, bi foo jëm. sama ngoor may ma ma toog foog ma benn problème man naara gi naara yaa ngi dinañ ko gérer man ak amul problème Kala muma mi di ma fenal fi quoi. ci hmm. town bi Muma muuma meen mo la fenal yow. Ya. moo muma muuma la ma fenal. man mi muma sikk na nag de. mais nag déclaré dama guerre y a pas de problème. man sa xam nga lan la man muma musuma neex xam nga lu ñuy def. waaw léegi yow looy xaar sa pour dem nok ko. man donc ma dem di ko kër gi musa xeex ñu bàyyi la individuel dafay musa am. amana ah, la mais du dugg ci bi de. lan. non da ngay rokkas lu ma def da koy def boo bëggee ñu def loolu téyel ma nii téyel ma nii tappane yow looy ruux nii man satu téléphone laa mën de wala lu la neex defal tàccul sax yow lan jam mu ma nag mu bu génnee fett bi da koy jam fii di ko koy dóor fii fii deret deret papa baa ngi tuuru mi ngi tuuru maa ngi koy sentir sax maa koy sentir laa ilaaha illallah sama yaram baa ngi def xaaral dem wooy ambulance wa wi wi ak peur sax ak wa oser et forêt comme ça ñu bari kër ko ñu xam naa kon bi dafa fees del nit ñangay sétan seetaan ma dem aw to gay yow demal bàyyi ma dem bay ak sama loxo dégg bàyyi ma dem. way boo ki ki jeexale kan xex bi kat ki mana fen gro gro ayja ayja ku ñime na nga taxaw ku ragal na nga daw ah, aasa ñëw dal seen kaw yow waxal yow laay waxal yow original fenkat nga dëgg nga yow yow man ak yow kooru xam nga ni du yomb nan dem وجه ah, ah, ah, waaye nag as man jaaxal na koo xam ne problème suba ak ngoon saay bu nan man da as man wax ma as mi nit la ah bu jugee ci lii rek dal ci lii jugee ci lii dal ci lii te nag fu mu jotee rek moo tooñ fu mu jotee rek moo tooñ jox génnewul loxoom ci taatu kuy dem père xam nga lu ma bëgg quartier bi bu dee mënoo koo seere nga teg ko dënd ni nga ko war a seere man jox ma quartier bi ma seere ko parce que man maa maa raw Poutine de sama diwaan kenn du fi turbaree te papa as moo ne ci koñ bi lu ko ne mu def père Gane xëy. Eh. papa as laa mu ngi ci koñ bi lu ko neex mu def kenn du wax as maam bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw. jàng ji aas aasa nga ci mairie aasa nga ci aas léegi dem na sax ba nit day jénn néegam mu jiwal ak yow dugg sa sa biir néegu jabar maa te samay bët. li nga wax yëpp dégg naa ko te aas matuma gàllandiku ma wax la ko tey. Ah, man aas xam naa ne père matul ci dara. dama ni li muy rëy rëy rëy aas dong du fi góor ay moromam ñu ngi fi gën ko terrible te dañoo réglé kon aas jaaxaluma. capital Oleh ini, dootoo bëgg dara lu dog jot rek tey moom damaa teel a loof tey Fodé ana kii la yow. ana aas. waa toogal nga ma soxla. aas tooguma lan la. woon ma aas mu ñëw. ah waa doo def ndànk lan ngeen jot loolu xew. dama ni bu ñëwee as lan moo bu ñëwee di nga ko xam. yow jàmm la. non di non yow kay yopp rek yow laay waxal. waaw ñàkk fayda yi nag ma ci génne ba mu set wecc nit musuma yab te du commencé ci yow yaa ngi may dégg. def leen ndànk dama bul ma waxati pobar na la wax. yow mom xamal luy sa problème. Eh. yow da nga wérut yow. deglu deglu na as ah, dédé bu toy yow da nga melni ku am feebaru xel. ay man ñe na ngeen def ndank ngeen waxtaanee ko lan ngeen yuuxu ñaar ñep xolal ñun may ñu ngi deuxième étage di wax ñun. mujjee Fodé bayil ba nu tok nga dogay ñew rek na problème. si xam nga lan la yow. waaw sa yu ñàkk fayda yi nga nekk ci Sik bi lepp yëg na ko. tooñ ñi ngay tooñ nit ñi sik gi nga sik war nga japp muuma da ngay tangal xolam ba mu ñew sama kër di ma la kalam def li mom mi dafa am lu taxoon ma def ko. lan moo tax. dafa am fu ñu jaar man moom. as bàyyil tooñ. bi muy kalaame war naa wax li ma def moom it. bàyyil tooñ ci yaa ngi di ko wax ay ay ay ay ay poobar doo ko eh eh, eh loolu laay bañ. Ah. soo ma mënul wax chef de quartier wala délégué de quartier nag ma bàyyi. yow doo chef de quartier. ah. man teguma la fi. Ah, da ngay dem ci ñi la fi teg nga doon seen chef de quartier. yaa ngi dégg dama ragaluma la nag. déedéet yow jaru ko nee du ma man dunduma ay affaire yooyu nga may wax man poobar laa jàpp te moom laa xam. Eh, eh, ah, defal ndànk yaa ngi tooñ nag. yaa ngi tooñ ah, man nga yow poobar yow. defal ndànk eh, defal ndànk. defal ndànk yow poobar yow yow mënoo ci man dara. Ah, bàyyi bàyyi ki ngay tuur booy poobar yow tax bàyyi ki ngay woy poobar. mooy lii nga may wax nii dina dakk tey. bala muy exercer benn force sa kaw. danaa ko avertir procureur ba mu. déedéet ma poobar déglu ma nag. xoolal oh ma baal ma damaa juum. ah ça a sérieux waaw. non ça a sérieux moytu bala ngay gaañu déglu un jour. mel ni njugub noonu. fekk mu naan noonu. yow mayu jàmm yow tam mais waaye avancel. ngay mel ni njugub nii nga ama noo. as du way tooñ nag yow tam ah. yow xam nga yow li soxla yow tapet nga man du un jour. jàmm laay war nga am tapet nga. man ni may at affronté ci biti. yow sa yoon newu ci. yow weeru koor gi rek man tey sonn gi ma sonn ngeen bëgg a nekk fii di. di di tempaale yow da ngaa jeex. damaa summeeku li may waajal ndogu moo tax ma summeeku nii. yow dama kay damaa xool sa mbub mi ni mbaxana mi ni mu jeexe nii lii sa mbaxana la du du sama bopp sama mbaxana la yow la yóbbu ci samay mbaxana doon xool ba xam ne ñoo tolloo bopp lan la war ngaa xool sa bopp ndaw bi di mel ni bopp cuuc nii nga ñoo tolloole bopp dama lay ñuus léegi ma dama poobar de Da de cu capital Cu ce sisu Da Da de cu capital Su combine să lau Nya până ni la ce Na mo dara Fe până ni Nu Nyunda nyu nice Atsu revives te fi să loc Conac fi moi capital eh.